ñu ngi leen di remercier ci ñëw bi ngeen ñëw fii nii di remercier monsieur Talla la vraiment jàppale bi nga xam ne delluwaat na defaat ko ci égaru étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Thiès. Euh, subvention bi nekkoon nañ ci di wax mais en fin compte bi ñu doon wax xamoon nañ que ne Talla la mi ñu xamoon. mooy Talla Sylla mi fi nekk ba léegi il a toujours été là pour les étudiants si la mi nga xam ne moom moo doon défendre l'intérêt des étudiants Talla mi nga xam ne fu étudiant taxaw moom moo ko mus di défendre c'est ce Talla Sylla qui est revenu aujourd'hui pour jàppale bépp étudiant bi nga xam ne mu ngi nekk ci université yi respective yi nekk euh, te ressortissants yi nekk Thiès ci loolu ñu ngi ñun étudiants yi ñu ngi kontaan lool ci geste bi nga xam ne def na ko pour jàppale étudiants yi parce que nekkin bi jafe na subvention bi mu ngi nekkoon de 1 million dem 2 ba trois moom mu ñëw yokkal ñu ko ba di millions donc kooku mënuñ ko fay kon xam nañ ne kooku noonu vraiment am na yërmande pour étudiants yi nekkit bi mu nekkoon université xam na coono bi nit ñi doon dund ba tey taxaw na ci ba bépp étudiant mu ngi kontaan ci jëf bi mu jëf ci loolu ñun étudiant Cheikh Anta euh, nga xam ne ñun lañ fal ci université yi nekk fale bu ñu nekkoon di wax sësoon moo tax mais xamoon nañ que ne problème de recouvrement la woon mais comme ñun dañ ñoo fal te falee ñu wax moom moo taxoon ñu wax mais waxuñu woon pour dara mais dañoo waxoon pour nit ñi xam rek ne ñoo ngi jëf pour que étudiant Thiessois xam ne ñu ngi sonn ci ñoom moom moo taxoon ñuy jóg mais xamoon nañ que taala mi ñu xamoon moo fi musa nekk xalaatu la yor xaalis ñun ñu toog di ko seetaan kon taala ñu ngi koy remercier bu baax a baax merci beaucoup monsieur le maire. kon mbokk yi tey euh, dañu fi daje ak sunu euh, mbokk étudiants yi nga xam ne ñoom ñëpp sunu ay am di jàmm lañu ñii sunuy rakk lañu ñii sunuy doom lañu ñii sunuy jarbaat lañu euh, mu mel ne dañoo mas a am yéene. li nga xam ne mooy seen jafe-jafe ñu def ko ndax man yàgg naa doon njiit ci élèves yàgg naa doon njiit ci étudiant jiite naa élèves Sénégal juróomi at jiite étudiants yi ñetti at te mësuma dagg buum bi doxoon sama diggante ak ñoom muy buumu kóllëre boobu moo tax fépp foo xamante ni suñu borom dogal na ma ne fa te am lu ma fa war a mën a def luy mën a yombal lal étudiants yi seenum njàng wala seen nekkin mënuma koo bañ a def kon dañuy sant yàlla mi nga xam ne yéene boobu nu amoon ci loolu may nañu ko ba nu jëfe ko euh, sunu borom dogaloon na jóge naa fi ba ma yégee ni dañoo am ay jafe-jafe dem naa fi ba université dugg ci néegu étudiants yi moo xam yi ci biir campus bi mooy xam yi nekkoon biir fas ba gis conditions yi ñuy dundee mu metti ma lool waaw boole woon naa leen ak directeur du COUD pour wax ko ne ko ñii sunu njaboot lañu na nga leen di jàppale dem naa fi ba Ziguinchor dugg ci néeg yi jël étudiants yi it yóbbu leen ba ci recteur bi nga xam ne maa ngi moom a jàngandoo université muy Courfey ma ne ko ñii sunu njaboot lañu ñi ngi lay dénk sunu njaboot na nga leen saytu nanga leen bàyyi xel. alors bëggoon naa ko def nag ci yeneen ñetti université yëpp muy bu cees bi bi nga xam moo nu gën a jege bëggoon ko def ci bu Ndar bëggoon ko def ci bu Bambey waaye sunu borom maye gunu woon jot ndax liggéey bi ñu teg. fii ci biir dëkk bi may guñ woon jot ñu def ko mais bu soobee yàlla loolu danañ ko mottali alors la ca des mooy euh, dafa jaadu nuy jàppale étudiants yi ngir lan xam nga am na ñoo xam ne dañu naan pourquoi ñu jël subvention bu toll noonu di ko jox étudiants waaye étudiants yi étudiants yi ñoom ñu ngi ci kër yëpp maanaam bu ñu defaree étudiants yi defal nañu waa Thiès yëpp ndax amul benn waa Thiès bu amul ci étudiants yi doom wala sët wala jarbaat wala rak wala dëkkandoo kon loolu ñu def ci étudiants yi dañ koo defal ñëpp alors loolu nag dañ leen di encourager ci ñoom ñu mën a doxal li nga xamante ni moo tax ñu nekk ay étudiants mooy ñu mën a jàng alors loolu su weesoo ma leen wax ne ginnaaw li ñu leen di jox dañ koy tuddee subvention am na leneen loo xam ne war naa mën a ne mooy ñun fii ci dëkk bi dañuy faral di wut ñoo xam ne dañuy jàngal dañuy former dañuy euh, gindi ñi nga xam ne ñoom ñoom la ñu fal ñu nekk ay conseillers di ko def jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy personnel bi alors loolu nag wala même ay groupement yeneen ñu ne ci biir dëkk bi formation yooyu au ñuy wuti ñeneen ñu ko liggéeyloo mais dafa jaadu ñu seet étudiants yi sant leen ko puisque am nañu xam-xam bi ñu def ko loolu di leen may beneen koom-koom mën nañu tamit ci liggéey bi nga xam ne dafa jëm ci civisme fiscal ñu fexe ba ñoom ci seen bopp aussi ñu am loo xam ne danañ ko ci mën a liggéey ci wàllu ah, leeral sensibiliser ak bàyyiloo xel nit ñi je pense que loolu suñ ko defee dina am loo xam ne dana ko cee yombal moo tax partenariat bu yàgg maanaam jokkoo bu yàgg la ñu bëgg ak étudiants yi pour que ensemble ñu tabax suñu dëkk bi nga xam ne mooy Thiès jërëjëf